asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers VF TV mbégteeg euh, cawarte la ñuy am saa su ne jàkkaarloog yéen ci seen biir télévision bu mag bii di VF TV ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi borom barrière or ba ci Médine gërëm suñuy ñaari waajur ñu leen di euh, nuyu yéen mbokki téléspectateurs yi ziar kilifa diine ya kilifa aada yi ci biir réew mi di ñaan sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wër Mbàkke euh, xel dem ci suñu sëriñ suñu wasila sëñ Moustapha Lakaram bu Afia. ñu ngi koy ñaanal Mbàkke Bàll moom it mu yàgg fi lool te wër waaye xel dafay daal di dem ci suñu mbokk yi tawat di ci lalu hôpitaux yi ñu ngi leen di ñaanal suñu boroom génne leen foofee ñu nekk ba delloo leen ci seeni activité waaye xel day daal di dem ci suñu mbokk yi nga xamante ne caabi féete na leen ginnaaw yal na leen yàlla génne foofu ñu nekk delloo leen ci seeni biir yi njaboot ginnaaw bañ leen yoon nag ziar leen di am mbégte euh, toujours rek ak contentement ànd ak yéen ci émission bu mag bi di Baol Feeling ah di leen nuyu yéen mbokki téléspectateurs yi euh, comme niñ koy defee toujours rek di leen yëgal ne yéen a ci seen biir émission boobu di Bawol Feeling ah, Bawol Feeling nag comme niñ leen ko doon waxee rek ci njëlbeen ba télévision bi di euh, euh, Vision Femme Future di télé bi nga xamante ne dañ koo jagleel waa Njaareem rawatina waa Bawol yépp nag ñuy ñaan autorité yeeg ñëpp daal di ciy jàpp ndax ñëpp ci mën a jàpp rek mu daal di doon barigo ci mbàttal puus mu dem puusut dem bu ko defee rek dañuy daal di bàkk jiin suñu autorité yi si biir dëkk bi ñu ñëw nag teg ñu loxo ndax soxla nañ leen euh, ci bu baax a baax ñooñu mën a jàppale ñu dem ndax yëf yi du yëfu kenn suñu yëfa ñoo moom bawal kon ñëpp ci war a ñëw jàpp ah, loolu nag moo tax tey sax si sama biir émission bi dinaa ci ànd ak euh, benn invité boo xamante ne euh, dina ñëw ci wàllu woowu ndax lépp loo xamante ne dafay dem ci commercial rek da ciy ah, suñu système boobu ci kanam dinañ dalal di ci woo ñëpp nag euh, di ci jiital nag sama xarit ba sama soppe ba kooku di euh, Sayer Diop DG Sayer nee naa kooku mooy généralu euh, l'AME moom nag maa ngi koy woo ci sama émission bu mag bi nag di Bawol Feeling mu jàpp ci sponsor bi jàpp ci tele bi ndax ku ci war a jàpp ku ci mel ni suñu nijaay Alaaji Mbay Wilaan moom it dañ koy nuyu lu bëree bëri di ko woo tamit ci jàppale bi ndax bëgg na ñëpp jàpp ci dooleel tele bi mu dem ndax seen yëf la yéen moom tele bi Euh, kon bu ko defee rek dañuy daal di dem seeti euh, waa Rési ñu may ñu clip su ko defee ñu ñëw dugal suñu invité euh, ci kanam free. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Van duffer, bra duffer, lai dukei Girmana bai samua Suma mani japuli be pujigen Girchono watte Van duffer, bra duffer, lai dukei beginning. acca ba tey rek nee naa leen yéen a ngi ci seen biir émission bu mag bi di Bawol Feeling ba tey rek ñu àndandoog suñu invité euh, soxna aliment Euh, dañuy daal di des ba tey rek ci allure de femme soxna euh, aliment su ko defee nga wax ñu lan mooy tendance ak euh, dégg naa sànq nga dugg ci jongoma 4 giga yi wala jongoma 556 giga yi boo génnee foofu nag war nga ñoo dugal tamit ci jigéen ñi nga xamante ne yemuñu ci greffage ak léttu rek dañuy muuru mooy mooy femme voilée yi ñooñu tamit ana loo leen mën a wax ci sa émission bi ak lu ci mën a xaar ñoom it. ok di leen wax rek ñu xaar ma mhm. parce que inshallah allah damay defanteeg ñoom dëgg du ne xeetu baax baax parce que man foo xalaat ni du ma fa génnee rek fa laay génnee mhm. parce que olof njaay dafa am lu mu wax nee na ginax day bari pax waaye jigéen ni dangay bari feem dëgg du neex te man ci yooyu laay dox lépp loo xamante ni bi day taaral jigéen doomu nday mhm. di rafetal jigéen man dama ciy dox te lépp loo xam ne aussi tendance la day yokk taaru jigéen man j'aime damay bëgg jigéen boo xamante ni bi yaa xam ngay muuru yaa xam loo mën di doon mais dama bëgg toujours toujours di moins euh, autant pour mois ngay ngay ngay def ba mu bien ba képp ku la gis daal en tout cas dina xam ni yaa ngi toppatoo sa bopp di leen wax ni aussi yenn femmes yi muuru des fois da ngay gis muuraay boo xam ne doom day dafay am tendance. dëgg la mais aussi day am classe. ba day surtout muuraayu xale yi ñuy gis. merci mhm. te man damay dem ba dama naan man pourquoi pas du ma muuru parce que des fois pas àjjuma mhm. damay jël ay pii col wala mhm. fulaax ma daal di essayer noonu affaire yi damay téye parce que bu ma dugalee dañ naan ma yow da nga war a muuru da war a muuru mais xam naa ni daal ak ibaadu yi macha allah parce que seeni fulaax ak seen muuru macha allah man moom jox na ma envie ma war a muuru man taalibe tout est possible na avec Alima bu ko defee rek euh, comme ni ko Alima waxee dégg ngeen ko nee na tout est possible avec euh, aliment kon aliment ba tey rek damay desandeek yow foofu ci euh, li nga xamante ne mooy mooy tendance suñ toll nii ci wàllum sañse wala coiffure tey boo ñu ci doon indil dara tey lan lay doon ok bu dee wàllu sañse moom moment yi moom tey baas yu benn loxo yi wala benn volant dëgg du neex day fay prix parce que des fois nga gis marinière boo xamante ni bii man bëgg naa marinière bu ñu xóotal ba ca dooba mu daal di ñëw rek tiim jupe bi yooyu daf may neex ci tàngaay bi aussi am na bët yoo xamante ni bii boo ko boolee ak tubéy comme ni nga def nii comme dafa xaw a sedd bu teyee mu sedd bu subaa parce que dafa varié climat bi. gis nga suñu merci dëgg du neex man taalibe Serigne Saliou bi. Mhm. Euh, enfant bien préparé sponsorisé par sa maman. dëgg du neex xale ñaq jariñu bi gonek bawal gi ngay am noonu. may ànd dox ak ba lepp lo leen bëgg rek ci walu sañsé walu mode et tout man dama leen koy fësalal ba mu fës di leen wax nak moment bi bu dé walu coiffure la lu ko démé ni comme petit tek ak dëgg du neex sama doomu ndey dafa ñëw def ben tok petit coupe carré bu ne moom wa daal di laal tokk maquillage am dëgg du neex parce que ta ngay da ngay xol li nga xamanteni bi loolu la andal nga def ko da sama doom tamit day dox sama doomu ndey di moins day dox ci tendance day dox ci lepp lo xamanteni bi dafa fësal ndax macha allah elle est tellement mignonne merci beaucoup déggal ma loolu aliment wax kon euh, sama mbokki téléspectateurs yi ngeen bàyyi xel bu baax émission boobu di alire de femme ak euh, sista aliment yaakaar naa ne yéen jigéen ñi lépp loo leen bëgg a xam ci taar ak xeeti baax baax xam nooy solo def ba mu baax nekk bonheur di bonheur da ngay bàyyi xel sista aliment bu ko defee nga àndandoog moom mu xamal la ñu jigéen mën a def ba taaru ñu jigéen mën a def tamit ba sopp lu muy kay muuru muy kay teg greffage mbaa muy léttu acca bu ko defee rek rek dañuy daal di dem régie ba tey rek euh, dégtal leen beneen clip te ñëwaat ci plateau bi. war naa mën

怎么换你个鬼。 know. Tell me, I just wanna know what you want from me. I just wanna know. Girl, you gotta let me know what you want from me. Yo la tane chi se morom yo. Bugo tu magi se rongon yo. Digante bi dara du ko dag. Bi dara du dag. mbag eh. bañ jógee régi seetaan clip ba pare nag damay daal nuyu euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ca diwaanu Afia Mbàkke ku ci mel ni sama nijaay Sile Diouf maa ngi koy nuyu lu bari di ko ziar euh, di ko ñaanal nag yéen boobu mu yenu yàlla na oyof toll ci kawam euh, ndax dafa ñàkk yaayam jooju di jaañ seen bu yàggul dara rekk ñuy ñaan yal na sarax si yàgg ci ay loxoom nuyu waa Afia yëpp nuyu fa nag sama chéri boobu di Moutala Diouf waaye du ma bàyyi kooku di Baara Diagne sama chéri yooyu nekk foofu ci Afia maa ngi leen di nuyu lu gën a bari nuyu waa marché bu ndaw yëpp nag rawatina soppay Sayer Diop yooyu nga xamante ne eh, ñu nga foofa ca marché bu ndaw Kër Sëñ Mbay saal wala ma ne njaari mu wërngal képp ndax nee na famille soppey Sayed Diop dañoo tasaaroo biir njaareem bëggee euh, waa Njurbel ñëpp nag euh, ku ci mel ni sama xarit euh, sama càmmeñ Moussa Ba Seri Aysata maa ngi koy nuyu lu gën a bari Ndey ture dama koy nuyu nuyu kooku di mata waaye duma fàtte Jaara Diouf ak magam jëjëyi fay maa ngi leen di nuyu lu gën a bari acca bu ko defee comme ni ma leen ko waxee rek ak suñu invité soxna Alima ndax euh, nee naa leen yemut ci allure de femme rek euh, mu ngi beneen émission boo xamante ne mu ngi tudd euh, Fësal Plus Alima ba tey rek ñu lay laaj lan mooy Fësal Plus yalla dafa def ma daali neeku nekk jongu mu mineur nak bëgg lepp lo xamanteni bi rek day taaral jigen lepp lo xamanteni bi rek ñi dafa bëgg ñu waxtane ko fësalal la ko ba mu fess ba ñepp jot ci man da ngeen ci and ak man mhm. lepp lo xamanteni bi ci nga yëngu xeebuñu dara muy jigen bo xamanteni bi da nga yor sa table bëgg ma fësalal la ko mhm. ba ñepp jot ci ci man mi lay jaax fësal dafa am ñeneen lu bes lu ci xew muy lan plus lan dëgg du neex parce que dañ lay le bonus bo xamanteni bi fi nga tok ngay tok di dirait di enjoy sa émission dëgg du neex lepp lo xamanteni bi day comédie man dama koy cabaxaale ci ci fessel bi pour mu meuna nek euh, fessel plus plus euh, ngeen ci and ak kan Alima Fall ak sama benen doomu nday bo xamne inshallah di ngeen ko gis ci fessel plus. acca deg ngeen lam wax bo degge fessel plus nak neena na dafa am lu ca yok moy walum comédie ah euh, ku bëgg a Alima mu lay fessel sa sa xol di sedd ngay retane ah, dina ci and ak ko xamantene dina and ak yeen di len bëgg bégal ci biir émission boobu di fësal ah moo tax ñu ne fësal plus kon euh, sista Alima ku la ku bëgg a fësal njaayam euh, nu muy def euh, ba jokkoo ko Alima wala ku bëgg a fësal njaayam fu muy jaar ba fësal ko. ok ku bëgg a jokkoo ak man nag doo jaar fenn lu ci service commercial bi. ayca ah, c' est madame Silla madame Silla Di moins. Mhm. ayca bu baaxee ba léegi ngeen jël da ngay def 77 daal di def 251 55 62 77 251. 251 55 62 aïcho ba léegi ma joxat len euh, benen numéro fixe bi da ngay 33 euh, nga daldi 971 après nga def 14 nga daldi 99 96 autant pour moi aïcho ba léegi tamit am numéro Bambey ku ñu ci bëgg jot tamit 77 062 1304 acca ah, dégg ngeen alima loolu mu daal di leeral ci fësal ah, ku ko bëgg a jot rek yaakaar naa numéro yu baax yaa ngi noonu mu joxe da ngeen koy contacter rek bu ko defee mu fësalal leen lépp loo xamante ne yéen a nga ca di yëngu dégg ngeen nam ko ca waxee bàyyiwut kenn nag képp koo xamante ne yaa ngi si sa ruq yore sa yëf bëgg mu fës da ngay daal di jàkkaarloo kooku di ah, sista alima taalibe Serigne Saliou boobu bu ko defee mu fësalal la sam njaay acca soxna alima ba tey rek ci fësal ñoo ciy woo Bon, fasal sel dama ci woo avant tout sax euh, ki nga xamanteni bi tay moma def ni bama neex xol xool dëgg du neex mhm. muy kan fallu ci kanam bi aussi aada fi jaar loolu yeb après dina len wax bàyyi len sen numéro tamit parce que ñàkk xam kat worut ndax xale bi machallah gonek bawal la am jom trop nango ligay da du neex mom dama koy wo ci fësal mhm. aussi di ci wo kep ko xamanteni bi rek suma limé dama damay nday soxna fall maa lay yow tamit euh, madame gay ken du yow ci mim rew yow ko jaay di wara jaayoko lepp ko xamanteni bi moy parfum rek baxul du neex madame Guèye laa euh, madame Guèye lay woo ci émission fësal incha allah di nga ñëw fii ñu fësalal la ba mu fës dëgg du neex Fall aussi sama tailleur bu ñaawut bi maa lay woo ci fësal ak képp koo xamante ni bi li mu ma la rek xamal ni xel day fat waaye incha allah dinaa la indi fii ñu fësal ba mu fës acca bu ngeen déggee soxna Alima ni mu ko waxee rek euh, kon ku bëgg a fës rek euh, bëgg mu fës daal ngay daal di jokkook moom bu ko defee nga fësal man nag dama cay daal di woo sama yaay ja sama xarit ba kooku di soxna Fatou Faye madame Mar coiffure nekk foofu ci marché Ndoumbé Diop euh, boo ko buggee jot da ngay woote si 77 800 07 34 su ko defee nga jaar ba ca moom rek mu defal la yu baax ndax moom it euh, moo ma génne fii tey ci kanam gu euh, yaan jugeek bopp bu baax bi yépp Fatou Faye moo fa jaar madame Mar ba tey soxna Alima da ngay daal di leeral rek ba tey lii di fësal lu ko tax a jóg ak ku ci bëgg a egsi rek fooy jaar ba ba daal di cay egg si en fait fesal nag euh, comme ni ma ko waxee woon rek euh, képp koo xamante ni bi lépp loo mën di yëngu rek nga bëgg euh, ñu wonelal la ko doo jaar fenn lu du ci service commercial bi madam Silla Euh, soo ko woowee rek après incha allah dina jokkoo ak yow ñu dem jëlal la sa bagage ba fa nga nekk ñëw indi la ko ci télé bi dëgg du neex télé bi mooy fan VFtv chaîne bi nga xamante ni bii ñëpp moom lañ doon xaar dëgg du neex ma defanteeg yéen xeetu baax wax ak yéen samay gros mots ànd ak yéen ñu daal di jël seeni bagage fësalal leen ko ba mu fës ayta bu baaxee ba léegi mën naa nekk. achète ne naa leen lépp nag fii lay xewee sur la première chaîne de valeurs télé jigéen yi macha allah dégg ngeen li euh, sama xarit bi décortiqué fii ci émission boobu di fësal kon euh, yaakaar naa ne dingeen xel di am euh, sista aliment euh, ci biir VFTV ak émission bu mag boobu di bawal di fësal plus boog su ko defee rek ngeen àndandoog moom lépp loo xamante ne bëgg ngeen koo fësal rek dina leen ko indil fii si VFTV daal di leen koy fësalal jox na leen numéro yu baax yi xanaa ñu bàyyeek moom rek mu rappelé leen numéro yooyu képp ku bëgg a fësal rek mën a jaar foofu fësal say mbir ay ca comme ni ko sama doom day waxee képp koo xamante ni bii bëgg nga fësal say bagage ba partout dans le monde jot ci euh, nga ànd ak ñoom di fëlaale képp koo xam ne aussi am nga vaisselle yu baax weeru koor bi ma ngi ñëw jeeg ji daw leen ngeen jëli ko célibataire bu mel ni man pourquoi pas ma daas fanaanal dëgg du neex parce que jëkkër day bette à tout moment ak képp koo xamante ni bii bëgg nga defal sa sa soxna ay xeetu surprise wala nga bëgg a jëndal sa yaay offrir ko ay ay assiette ci kii bi dama lay wax euh, nga daw parce que yëpp a ngi ci biir lépp loo xamante ni bii war nañ ko war a mën a fësal euh, ma ngi ci biir fësal képp ku am looy jënd képp ku am looy pip képp ku am loo xamante ni bii rek donc bëgg a fësal ba ñëpp jot ci léegi da ngay jël numéro service commercial bi madame Silla nga def 77 251 55 62 77 251 55 62 après nga daal di def euh, numéro fixe bi 33 971 14 96 bu fekkee numéro Bambey la tamit euh, boo bëggee woote pour ñu fësale la ak yaa mën a xam lépp loo xamante ni bii rek euh, bëgg nga euh, ñëpp jot ci danga may woo aussi ci numéro bi nga def 77 062 13 04. ca ah, jël leen ko numéro yu baax yaa ngi noonu ci alima bu ko defee mu fësalal leen lépp loo xamante ne rek njaay njënd ak njaay la rek nee naa leen da ngeen di wëri sista alima ah, alima bu yànn bi nga xamante ne moom ci boppam dafa fës ba tax na lu mu fësal loolu dafay leer macha allah ah, ca kon sista du ñu def lu dul bàyyi la nga daal di tàggatoo ko mbokki téléspectateurs yi lay seetaan à travers VF TV. Aïcha Mampi soo ma mayee damay remercier ki nga xamante ni bi moo ma solal muy Fallou moom tamit ma daal jox joxe ni morom euh, ak aada nga xamne mo genn ci sama kanam bi machallah ba ma neex xol deug du neex parce que jigen tamuna ci ngay wax di belli sa kanam daal di def tok jongoma damay bëgg yo ci xale ayca bu baxé ba légui warna mëna neek da ngay jël numéro aada rek mo ma ngi neek ci HLM yi route de Bambey nga daal di def 76 180 89 07 numéro aada ki nga xamne mom moma genné fi sama kanam ba ma neex xol nga daal di jël tamit numéro fallu sama frère de cœur deug du neex Euh, moom ma ngi nekk ci Bambey euh, route de waxal jàmm ba léegi war naa mën a nekk euh, su baaxee ba léegi ñu dem da ngay def 76 moom tamit nga def 585. 28 86. ca bu ko defee ñoo ñoo jàppoon ci kombaam ba mu naay neex xool macha allah. sama doomu ndey bi kenn du moom. Ah, ca kon cant ak ngërëm ñenn la rek di la sa émission yu mag mm. yooyu ah, loolu di allure de femme ak loolu di fësal plus. d'accord ma bis di am mbégte man tamit mais bala may dem nak deug du neex parce que nenañ nañ feccum bu neexee nday ja japp ca mbag ba kenn du ma mama ma mama chéri Fatou Diop yow dundal lo dund do, sama yaay ju bax joju sa dund am na njariñ acca bu ko defé rek damay dem ba fofu ci diwanu italy daal di sama nijaay Ibrahima Diouf ah, di ko lu gëna bari diko ko bu wër ah, nan ko ah, sarax ci yag ci sen loxo rek waye it duma fa faté sama magu bop sama xarit elage Alaaji Ali Faye foofa ca Italie maa koy nuyu waaye sama xel dem ci sama yaay bu Diagne nekk foofu ca Italie doomu ndeyu Seynabou Bey euh, nekk fii kër sëñ mbay saar foofu ca ko Kota damay nuyu nag waa kër sëñ Mbaye Sarr yëpp du ma fàtte kenn ndax nee naa leen ña fa nekk dañuy bëgge fu ñu toll télévision bu mag bi di VFTV nee nañ euh, du ñu zappe fenn ci télé boobu rek lañ ko kal ndax dëgg du neex te télé bi moo yëngal jamono. ca bu ko defee dañuy rek may leen kilib daal di ñëwaat ci euh, plateau bi yàgg nañ ma wax ay mbiiram waaye gaw ma ko woo ma dajeg moom fes su fes ma mel ni ku ñu dóor ma ko doo oom ndekete urul aini am na fiici kaw suuf leer gu mu àndal ni ëpp na ëpp na ëpp na mën a ko romb te gestu wow xool ko te miiru low yaa ngi xoole de gentu low ci si da nit la bro dafa ànd ak caas fu mu romb bay fa trace et laat la classe quoi qu'elle passe Alle and da von nice and oh. nice nice nice nice oh. nice nice nice nice nice oh.

moom na sama xol foog ma am ko ci butel ndax maa ngi koy janeer fii ma toog xale bi dafa nice a nice oh nice nice a nice a nice oh nice nice a nice a nice oh nice ba yëggi daay yoo ah taaru taaru taaru gilsa flow si xale bi maa wu sunshine sama reen yi xol mu ngi nii yaa ngi may tooñ non grand bàyyi la ngeen wax xam ñoo bokk tooñ non non grand wala bokk bàyyi mu sedd non yaa war a bàyyi mu sedd xale bi dafa nice so nice xale bi dafa nice so nice so nice nice so nice so nice so nice nice so nice so nice so nice bu jéggi dayoo ah nuy sa nag sama yaay ja Ngoné Diagne ah Diagne Naar Euh, maa ngi koy nuyu du ko ziar yaayu Lobeek Jaara yaayu sëñ Abdou ak Kóolu waaye yaayu Munaas maa ngi koy nuyu dem ba foofa sa Sambe nuyu waa Sambe yëpp nuyu sama yaay Boussa Sène nee naa leen jàmbaar la foofa sa Sambe jigéen ju mën góor maa ngi koy nuyu waaye sama mama Astu euh, seen bëgg fàllu moom it dama koy nuyu ah, dem nañ fa rek bu yàggul dara ci 8 mars bi ah, mu def lu toj xam naa du yàgg dara fàllu dina ko indi ndax loolu dafa war a génn kenn ko nëbb nuyu ñëpp rek

su ko defee rek lii la leen Bawol Feeling indiloon tey ma yaakaar ne neex na leen gis ngeen sama invité bi ma ci àndaloon muy Alima euh, taalibe Serigne euh, Saliou boobu borom alir de femme euh, borom fësal plus ngeen xaar ko bientôt ci VFTV moom it dina ñëw defanteeg yéen yu baax ah su ko defee rek mbokk yeeg xarit yi fii lañ leen di tàggoo jox leen dig daje beneen yoon